wa fikrati nawir waxal bi arshida mbokk yi ni bàyyi xel fun mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk biti réew tey bàyyi seen seen bu am solo bi muy le grand secret wolof ñu ngi leen di wax di asalaamaaleykum wa rahmatullah mbok yi dikkati nañ ak yéen ci njariñ yo am solo yi leen indil tey ñu fas yéene leen indil benn njariñ bu am solo muy ñetti turu yàlla yoo xam ne képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga bëgg bayre bu gaaw lool dee ko faral di werdu mille cent onze lu ci gaaw la lool boo ko mënee na nga njëkk fexe ba bind ko saafara cent onze fois nga bind ko ko wut parfum kaafoor nga def ko dika ko sangoo fexe ba waxtu woo xam ne xëy nga nga fexe ba di ko werdu mille cent onze baax na lool ci wàllu bayre bu fekkee da nga koy yittewoo ci wàllu wërsëg na nga fexe ba njëkk ka bindlu trois cent huit muy baddoo wadoodu xeet yi nga fexe ba bindlu ko saafara trois cent huit fexe ba saafara se nga def si ka kaafuur di ko sangoo moom baax na lool ci wàllu wërsëg heure bo xëyee nga jema a fexe ba werdu ko 308 muy hadadur rasaq boko kay def li di wërsëg dina jappandi lol ci yow juga ci fànn gu ne nak waye xamna naa mbokk yi bala ñuy wat yi ci desaat dañ lay wax yow mi gan ci pass bi bo abonné ko nga abonné ci chaîne bi ta partage vidéo bi mu gëna yaatu ndax mboolem vidéo yi ni dugal yépp ay vidéo njariñ la mbokk yi wo garab yi kattan yi ñu leen di wax ne garab yi disponible na képp koo xam ne da nga bëgg def loolu si xaar man nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 bu dee da ngaa nekk Gambie ak li ko war nga contacter ñu ci numéro Gambie bi muy 238 1629 kon mbokk yi xam naa fii la ñuy yem ak yéen ba lëg ñu di ak ci beneen secret wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf